mbokk yi ak xarit yi ñuy amaat encore une fois mbégte ak kontante dañu bëgg waxtaan gis-gis bi nga xamante ni bii gis naa seex Yérim Seck am kàddu yoo xamante ni bii moom seex Yérim yëkkati na ko ginnaaw bi nga xamante ni bii manifestation yi am na dañuy ànd ak waa Rési teewlu kàddu yi nga xam ni mooy yi Cheikh Yérim Seck yëkkati. je vous en bref dafa am lu ñu waroon a xaar am lu ñu mënu woon xaar le fait nit ñi de manifester aw ci problème c'est normal fépp ñu ngi manifester tey boo bee télé bi Grèce ñu ngi manifester France ñu ngi manifester la fait que ñuy manifester Sénégal sax c'est bien parce que am na réew Afrique yoo ba xam ne kenn mënu fa manifester Guinée manifester nañ fa mu am cent cinquante morts xam nga euh, Iran manifester nañ fa mu am plus de cinq cent morts. donc ñu ngi manifester depuis plusieurs jours Sénégal y a zéro mort c'est bien mais par contre dafa am image yu ma choqué ay nit ñu dem ci travaux BRT bi di yàq liñ fa def loolu dafa ma choqué nit ñu dem jël kaar yi Dakar dem dikk di ko lakk nit ñi dem ñoo xam ne seen yoon nekk ci ay privé la ñuy liggéey am seen magasin Auchan wala dara nga dem lakk ko donc dans ce pays il faut aussi ñu am culture parce que damay dégg souvent ñu naan waaw état bi dafay interdire pour trouble à l'ordre public xam nga gis nga droit de manifester lu doy waar la da nga war a chercher équilibre. jërëjëf ñu amaat mbégte ak kontaante eh, ci ñi nga xamante ni bii ñoom la ñu àndal ci liggéey bi Cheikh Yérim Seck. dafa yëkkati kàddu yi nga xam ni moom la yëkkati ñu déggandoo ko mu wax ni manifester le fait que ñu di ko def sax lu baax la mu ne c'est bien mu wane ni Grèce ñi ngi manifester France ñi ngi manifester kon Sénégal manifester sax lu baax la mu wane ni am na dëkk yoo xamante ni bi kenn mënu fa manifester mu ne parce que Iran manifesté nañ fa mu am 500 morts ci kàddu seex Yérim gine manifesté nañ fa mu am 14 morts Sénégal ñu manifesté fii mu am zéro kenn deewu ci Cheikh Yérim li mu wax boo ko déggee euh, dafay mel ni dafay mel ni boo defu ndànk da ngay jàpp ni li mu wax dëgg la. seex Yérim dafa fàtte di bi muy wax Iran nañu jox année bi bi ñu doon manifester ba mu amoon 500 morts nañu jox Guinée année bi ñu doon manifester ba mu amoon 80 morts ban année la diggante boobu Sénégal def na fi ay manifestations yoo xam ni am na ay moor yoo xam ni seex Yérim peut-être considéré wut morts yooyu ne ay nit ñu dee lañ parce que ñi ngi koy rappeler. yi nga xamante ni bii am na fi muy ay décès quatorze morts yi ñoo ci mujj te boobu fekkoon na mbirum gine bi mu jël exemple romb ba pare Sénégal ñi ngi manifester mais ay morts ñi ngi am nit ñaa ngi faatu mais Cheikh Yérim li ma gën a naqari ci wax ji mooy moor yooyu peut-être moom naqariwu ko mais li ko metti mooy osan yi ñu dajji magasin yi yooyu lu mu sumbee mbiram rekk la waaye gis nga ko yegg na ba ci BRT bi nga xam ni moom la ñuy yàq te Cheikh li ko war a gën a naqari mooy bakkan yi nga xamante ni bi ñàkk nañ ko ci manifestation yi nga xamante ni bi mujjee na fi am sénégalais nag lii mooy li nga xamante ni bi mooy problème am parce que le fait que ñu bëgg a fàtte li nga xamante ni bi xew na fii ci réew mi nga bëgg a ñoo jox yow yeneen réew maanaam même sax bu fekkee ne dafa ñu bëgg bëgg a mais aussi tamit dafa ñu bëgg a tuutiloo nit ñi fi ñàkk seen bakkan nit dafa warta ñàkk bakkanam ci manifestation ci kaw ci ni nga xamante ni noonu la Sénégal te nga xam da nga war a yëgle rek pour aman li nga xam ne moom lay yox manifestation tere gi moo du nekk sax léeg-léeg lu normal parce que pour nga tere manifestation day xaw a parce que dañu def ci biir constitution bi daganal ci li nga xam ni mooy manifester nit ñi am droit de manifester mais le fait que mu tuddal la 500 morts tuddal la 80 morts booba la xeeb 14 morts yi nga xam ni am nañ ko ci manifestation te nag gis nga boo xeebee lenn li. mooy permettre ñeneen di def leneen lu gën a garaaw yu ñuy yóbbu foofu foofu lañ bañ a yegg parce que benn nit warta ñàkk bakkam ci bakkanam ci manifestation yi nit ñi lan la ñuy manifester ñaata manifestation nga fi gis ñu autoriser ko te déggoo benn yoon problème am yi indi problème yépp mooy yiñ tere kon defe naa ni foofu la waroon a wax foofu la waroon a jëmale kàddoom mais pas ñu jaar ci yoon wii nga xam ni moom lañ jaar boo seetee dafa am ñoo xam ne dafa mel ni dañuy jóg pour manipuler opinion bi nit ñi nga xamante ni bii jàpp nañ ñi ñii ñi ngi nelaw ñu fexe leen a taalal ventilo wa ilaa ñu di leen upp gën leen a bàyyi ñuy nelaw mais Sénégal googu jeex na nit ñi nelawuñ ay njàccaar lañ ñi ngi ne xujj di xool xam li xew c'est que ñoom Cheikh Yérim fekk ñi ngi jàngatee sénégalais yi comme ni ñu doon jàngatee ay sénégalais des années quatre-vingt des années quatre-vingt ñi ngi ci njuumte parce que depuis quelque temps nag ma wax la lenn sénégalais yi ñor nañ te it am nañ vécu politique am na lu bari loo xam ni xam nañ ko maanaam xeetu naxaate gi nga xamante ni bii sax moom la ñenn ci presse bi di naxaate sénégalais yi xam nañ leen donc il faut que. ngeen xam ni pour manipile nit ñi yombul Cheikh Yérim delluwaatal tuuti xalaat di nga xam ni li nga doon wax ay waxu kuy nelaw la mbokk yi ak xarit yi ñuy amaat mbégte ak kontaante saa suñuy jàkkaarloog yéen ci l'émission des émissions di gërëm ñi nga xamante ne bi ñoo nekkoon ci équipe technique bi ji moo di juuf jiite leen ab du topp ak Ablaye di gërëm aussi tamit directeur programme son bu Diop di am mbégte ak kontante ci yéen ñi nga xam ni yéen a ñu doon teewlu ñuy joxante dig daje beneen yoon ci l' émission des émissions jërë ngeen jëf.